mbokk yi ñun yàlla suturaal nañu nañ suturaal suñu bopp nañ suturaal suñu bopp te bàyyi weerante bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee yàlla nee na wala boog na jullit yi jaamam yi xeetam bi mën nañ cee génn ak bakkaar yi lii bëri bëri man nañ cee génn kenn dong ci dul génn mooy ki nga xam ne lu mu def wax lu mu xam wax siwal mbon siwal mbon moo yées mbon siwal mbon moo yées mbon set ma wax ko bët bu set ñun ñu jàngale ñu ndax loolu moo nekk ci téere dama ciy joxe ci suñu misaal ci njaaloo parce que faaxisa bi baat bi li muy njëkk a mooy njaaloo njaaloo dafa xaraam njaaloo ku ko def am na ñaari daan daan bi nga amal société bi ak daan yi nga amal yàlla mi la aaye njàll ma njàll yàlla moom daan bi mu bi bi bi bi mu la bi mu ko amee moom yaa ngi ko sëriñ bu nga bala ñu ko rek la génn ci moom mais société bi am na daan boo leen amee mooy dañ laa war a yóbbu ca pénc ma dóor la téeméeri yar ñëpp fekk ko bañ xam ne yow mi ku la bàyyi nga continuer ci ngay def réew mi pénc mi yàqu parce que penc mi ba léegi ba bi ngay commencé di def si caacaay ku fi juddu sañ a taxaw ci penc ma ne diwéy sama yaay ñu ne ko wax nga dëgg mu ne diwéy sama mbaay ne ko wax nga ndax ku fi mas a ci sëy la juddoo ci sëy amul possibilité boobu possibilité wax ne diwéy sama yaay ñu ne ko wax nga dëgg mu ne diwéy sama mbaay ñu ne ko wax nga dëgg amul possibilité boobu te loolu ci droit de l'enfant la bokk daa bokk ci droit de l'enfant mu am droit wu taw ci pénc bi ne diwee sama baay te kenn du ko ñemee wet te loolu leen rek moo koy may mooy mu dugal cib kon ku njaaloo ku njaaloo te njaaloo juddu mën ca am tàmbali ngaa xañ xale yi seen droit moo tax société bi il faut mu teg la daan daan yooyu téeméeri yàlla ñu dóor la ñëpp fekk ñu ne la léegi nag li nga deseeg sa borom xaaral ba àgg foofu nga réglé ko en ñun wàccoo nga ñun léegi tooñ nga faj nañu ko léegi nag yaa ngi ñëpp a yemaan yaa ngi kenn du ca fell dara droit kenn du ca fell dara yaa ngi ñëpp a am man ngaa nekk lu nekk lépp lu as gor di mën a nekk ci dëkk bi mën nga koo def y compris nekk imam y compris nga nekk imam kon desene duñu la dara ki nga xam ne moom du njaaloo moom góorgóorlu na ba du njaaloo góorgóorlu na ba du njaaloo te c'est pas évident c'est mu évident mu góorgóorlu ba du njaaloo waaye mu rattax làmmiñ a rattax ba fu mu gisee góor jigéen ko taxaw mu ne dañuy njaaloo fu mu gisee jigéen ñu nayif wax alxaafilaat dafa am ci jigéen ñi ñoo xam ne yëguñ dara ci seen ñoom amuñu problème boobu dañuy dugg ci biir góor ñi wax ak kii jaar fële nuyu kële wëccu wëccu te te du mon sax du mon ci ñoom yàlla leen ko bindi ñooy raafilaay ñooy xam ne da yëguñ dara seen yàlla du wu bu ñu wax ak góor gi wala ñu dugg seen biir ñu mel noonu góor ñu bëri dañuy def ne rek woyaf pendaa tax ñu mel noonu su ko defee dañu leen di accuser ne ñii ay fokkat lañ gis loolu ni mu ni ñemee góor bi am na benn xale bu commencé wax sama benn élève mu jooy franco benn xale bu jigéen boo xam ne noonu la ko yàlla day muur day muur mais yàlla ko ni loolu dafa dafa dafa dafa dafa ubbeeku dafa dafa day wax fii wax ak kii xale bu góor bi ne ko yow da ngaa ñemee góor loolu après baat bi di ko parce que xam ne li mu bëgg a wax mu jooy jooy yi métti ma ñëw fekk ci classe bi muy jooy ma na ko nangu ko koo wax ma force ko ne ko non attention man maay sa oustaz maa lay te sa bàyyi la sa way jur laa soo nekkee ci classe bi am lu loolu yëg bay jooy war naa ko xam ne ko xaaral toogal xale bi